rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah moolaana muhammadin wa ala alihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jamaatul islah bayna nas ñu ngi leen di nuyu di ziyaara giral nuyoo bég ziyaara di ko teg ci loxo alfaahima yaram yi yàlla jiital ci mbooloo mi di nuyu ki ñu fekk ci buntu mooy Ibrahima Thiam Zakir di am mbégte lool ci di ko dégg ci waxtu wi fa tabarakallahu na ko mawlana cheikh ibrahima waxoon raaytu rasulallahi nassa bi annani shafirun lahu fil kainati al muxassas loolu lu rëy rëy la ginnaaw loolu mbokkee xare ñu fas yéene ñëw rek ci xibaar yi nga xam ne moom moo tukkee ci xew-xew bi nga xam ne moo am ci abdul mi'raj wal isra muy jihaad bi am ci diggante jullit ñi ak yahud yi foofee ci Palestine di ñaanal waa Palestine jàmm di leen ñaanal sutura di leen ñaanal di leen ñaanal yàlla taxaw leen te dimbali leen te dooleel leen nasaxal seeni noon yi nga xam ne mooy yahud ak képp leen di jàppale. na moom ab euh, ab coordinateur la boo xam ne bu Nations Unies spécialement ci lépp luy yëngatu ci wàllu jàmm foofee ci Proche-Orient muy foofu ci li wër moom moomu nag nga xamante ni moom euh, dafay nekk koo xam ne dafa jagoo lépp lu jëm ci wàllu luy doxal jàmm ji ci gox boobule nga xam ne moom mooy Palestine ak euh, réew yi nga xam ne ñoo ko wër Jordanie Liban Syrie ba ci Égypte ñu koy Proche-Orient foofu nga xam ne moom lay proche moom mi nga xam ne moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu jàmm ji foofu moom la ko waa Nations Unies dink muy mbootaayu xeet gi moom nag ma ngay wattandikoo xare bu mën a am nag làmbaale boobu bépp béréb bu nekk foofu la ndax nee na li mu gis daal dalul xelam benn yoon ndax nee na mu gis moom mooy ak yàqu ak ay mab ak ay musiba mbamba kumba yoo xam ne ma ngay gën a wéy di gën a àgg foo xam ne kenn séntu ko woon newati rawatina foofu nga xam ne mooy Rafa te nag li mu bëgg daal mooy ñaari wàll yi nga xam ne ñoom ñoo seq xeex bi muy mu jaaxidoon yi di julit ñi ak yahud yi ñu daal di dellu waxtaanaat ndax li mu gis te xelam may ko ko mooy ne xeex bi dootul yamati ci ñaari wàll yi muy julit ñi ak yahud yi ci foofu foofu ci suufu Palestine waaye dafa na a tas dugg ci sous région bi maanaam mbooleem wàll woo xam ne nekk na fa dim réew rek xeex bi nar na laa alawti ko nar na laa laal kon nag moom li ñuy tuddee guerre sous régional maanaam xarbul iqlimiya moom fi mu toll ni loolu lay moytandikuloo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu woowu ba tax na kon moom nee na jàmm rek ci lay woote moom mi nga xam mooy coordinateur bu Nations Unies spécialement pour la paix au proche beneen wàll këru yéenekaay yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci Israël ñoom nee ñu kat li nga xam ne moom mooy seen armée bi daal di nay jañaxaar jaare ko ci ay kàttanam yi féete kaw muy force aérienne li nga xam ne moom mooy ay mbir yu ko noon a dikkal ci ay musiba jóge ci jullit ñi jëm ci ñoom foofee Nablus kon jàppale ne armée israélienne nee nañ démb jañax nañu bu baax a baax a baax ay song yoo xam ne jóge woon na ci jullit ñi jaare ci kaw di jëm ci ñoom foofee ci loolu mu ngi firnde wu ko ne kon jullit ñi nga xam ñoo nekkee foofee ci Hamas ñi nga xam ñoo leen di jàppale am nañu ay ngànnaay yu mën a jaar ci kaw jëm ci ñoom te loolu mooy leen tëwoon waaye teewul waa Kataayibul Qassam mooy ñi gàddul ngànnaay ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Hamas ñu leen di tuddee branche armée Kataayibu Azuddin al Qassam ñoom nee nañu ñoom song nañu mbooloo moo xam ne ay yahud lañu làqu woon foofee ci ab tabax ci nday jooru benn ci ci ci nday jooru quartier bi ñu sabra waaye nee nañu dóor leen foofu li nga xam ne moom mooy ay roquette ba tàbbal nañ ci seen biir ñoo xam ne rey nañ leen gaañ nañ leen kon jàpp leen ne waa Hamas muy waa Kataybul Qassam fekk nañu ay yahud yu làqu lool ci benn tabax doon fa seelu ngir maytu ngànnaay yeeg musiba yu war a yegg seen kaw teewul tàbbal nañ ci ñoom ay xeeti rey ak ay gaañ ginnaaw bu ñu leen dóoree li nga xam ne moom mooy réerantal li nga xam ne moom mooy xalaat bi nga xamante ni adduna bi ñu ngi koy am ci li nga xam ne mooy li xew foofee ci ardu Palestine muy jihaad bi dox ci diggante jullit ñi ak yahut yi réerantal gu tar googu nga xamante ni moom la États-Unis nekkee muy États-Unis d'Amérique ginnaaw bi nga xamante ni ñëpp xam nañ ne ak ndëgëral gu mat sëkk ci la taxaw di ko jëfal ñi nga xam ne moom mooy yahut yi loolu moo waral ndimbali mi wane ci kaw loolu nag lu samay kaddu kaddu ñi nga xam ne waa Hamas lañu nee nañ mbooleem loolu lañ gis Amérique di ko def ci kaw muy ay ndimbal ay naan day jéem a yóbbu ay lu nekk comme démb ni mu amee nga xam ne démb dugal nañu lu ëpp ay téeméeri téeméeri camion ci ay ndimbal yu takkoo takku mu ne loolu dara de ñoru ñoru ko ci li muy firndeel rek mooy dafa bëgg a nëbbu taxawaay bi nga xam ne am na ko ci wetu yahut yi di dimbali ci ngànnaay di leen dimbali ci ay li nga xam ne moom mooy lépp loo xam ne dina tax ñu gën a mën a faagaagal doomi palestinien yi waaye nag ci loolu nag réew mi ñuy wax waa Colombie ñoom ginnaaw bi ñu gisee massacre yi am ci barki démb talaata bi ci suba te ñaar fukki doomi palestinien ñàkk seen bakkan foofee ci Rafah te mooy ñoo xam ne ay daw làkku lañu woon ginnaaw bi nga xamante ne sànni nañ leen ay tooke nga xam ne sax bon nañ ne tooke bi ñu leen sànni mën nañ ne benn bomb bi def na ñaari junniy tonne ñu daal di koy tëmbal ci seen kaw ñu ñàkk seen bakkan li ëpp ay jigéen ak ay xale ba ñuy daw di leen muccalee di leen maanaam sauvé foofee nga xam ne mooy hôpital bi nga xam ne mooy Indonésie fekk foofu sax amul benn lu leen fo mën a muccalee ba tax nañu ci bari dañoo ñàkk seen bakkan ginnaaw loolu bi mu amee nag waa Colombie ki nga xam ne mooy président bi moom yëkkati na ay kaddu kaddu gi nag li mu yëkkati mooy dafay woo mbootaayu xeet yi ñu gaaw amal li nga xam ne moom mooy benn force interposition maanaam benn armée boo xam dafay daal di dem taxaw foofee mën a lawal jàmm ji foofee ci Gaza maanaam ñu daal di rek daal di ëpp benn armée benn benn lël boo xam ne dañ ci boole soldat yu takkoo takku ñu dem ci béréb boobu mën a xaajale diggante jullit ñi ak yahud yi ci xeex bi ñuy xeex ki nga xam ne moom mooy gosta Gostanafo Baytro di woo waa umamul Unida maanaam Nations Unies moom président Colombie bi ñu gaaw def lu mu gën a gaawee gaaw andi fa benn armée boo xam dafay nekk ci diggante yahuut yi ak ñi nga xam mooy jullit ñi ngir ndax jàmm ji mën a sax foofee kii foofu nga xam ne moom mooy ardu Palestine di ardul Isra wal Mihraj li moom lu doy day waar la mooy waaj ndaw si nga xam ne ma nga ca kanamu béréb bu yaatu boobu nekk benn sénatrice maanaam nekk sax njiit la di wax ci waa Palestine foofu ci États-Unis d'Amérique la xewee mel na sax daa yëkkati ay kàddu kàddu ŋaañ ñi yu méttee métti jëmale ko ci ñoom ba leen dal dañ koo yeyoo moom ndaw si waaye ba mu ko waxee ba pare benn waaye moo jóge fële ca rang ba fekk ko fa mu nekk njañ ko daal di koy mbëkk bu ñu doxul woon ci diggante moom moom kon dana ko faagaagal kon nag lii mooy li xew ci seen réew yi mooy foo tuddatee Palestine wax safaan nit mooy jug duma la ak garat boo mën a am foo waxatee euh, Israël tudd lu baax ñu duma kon lafa des rek moom mooy ñuy ŋàññi Israël kon Israël perdre na li gën a rëy mooy guerre diplomate maanaam kenn bëggatu ko ci àdduna bi loolu nag bés bu xasee ba am par rapport ak ak ni ñu doon victimiser woo maanaam ni ñu doon tax naan ñoom ku leen laal ñu naan la antisémitique nga dañ leen def lii ci Hitler daf leen def dañ leen bundu xatal ba taxoon Europe ñëpp ñëpp am ay mouvement yu leen di défendre tuddee leen ñoo xamante ni dëgg-dëgg ay peuple la ñu ñu bàyyi woon xel waaye te ji lii mooy li xew même ci li nga xam ne mooy place dogalukaay yi gën a ci réew yooyu nga xam ne mooy États-Unis d'Amérique ak feneen fu dul moom mooy saa boo waxee dara Palestine nii la waa ji di tëbee njañ la duma la duma yu méttee métti kon xam nga ne kii bu génnoon ci mbedd mu faagaagal ko lii mbokk yi mujiza la min mujizatil jihad lii nag kémtaanu borom bi subhaanahu wa taala la ndax wax dëgg yàlla ñoo xam duñu jullit yàlla tàggat seeni xol ci seenu nit ki àgg ci boo dee benn ñaaw teef ci Palestine ñu fekk la foo mën a nekk njañ la def la nii ne la rëll duma la ba ngay bëgg a dee lii nag mooy firndeel que ni lii annoncé maanaam lii ñëw victoire éclatante la ci kaw yahut yi nga xam ñooy sioniste yi ak mboolem ku leen doon jàppale ci ñaaw teef bi nga xam ne moom la dëkk di ko def moomin mooy xale moomin mooy jigéen ki mënut amut déplacé wala làqu ci ab ruq bokkul ci xeex bi nga ne ko tëll aw bomb boo xam ne ñaari junniy ton la loolu ñaaw teef googu ku seetaan di nga xam ne borom bi nga xam ne moom am njabootam gii ci kaw suuf du ko seetaan leen kéemtaan boo xam ne mu ngi nii gën a doyati waar mbokk yi Créat Samona yàgg nañ ko wax Créat Samona mi ne ngeen ko ci sama làmmiñ mbaa mi ne ngeen ko ci làmmiñu média yi moom mooy euh, dëkk yi nga xam ne moo nekk ci diggante euh, suufu Palestine ak fi nga xam ne moom mooy Liban te yëxut yi tegoon fa loxo mu nekk ay colonie yu ama am doole mën nañu tey juróom benn fukki junniy doomi Israël ñu ngi fay dawee génn fa réew ma foofu ci boppam nit ñi nee nañ bu ñu tolloon population yi bu tolloon tey ci limu ñaar fukk junni dafa mel ni tey ñetti junni ñoo fa des fi mu toll nii administration yi ak militaire yi nga xam ne dañoo tayle seen bakkan rek ñoo fa des ndax ko xam Hassan Nasrallah xam ay soldaaram xam ay taalibim ñoom yahud moom faagaagal ray ci xam moo tax fi mu toll nii may wax di lu mat juróom-benn fukki junni ci ay doomu aadama gàddu lañu seeni bagage daw ruq boobu dem seen yoon muy foofu ñu Kiryat Samona Kiryat Samona moom mooy ay colonie yu bare bare xam ngeen bu leen fàttali ko bi xeex bi di tàng monsieur le maire ba waxoon na ne carrément yóbboo nit ñi génn dëkk bi wala ñu xam lu ñuy def boobu ba léegi rek Israël ma ngay jañax léeg mu jañax léeg-léeg mu jañax def na lu ne waaye création na fa ñu mujjee daal mooy population yi daw nañ génn foofu lu mat soixante mille israéliens ñoo fa dawee war a daw nag ñëw nag daal di nag fekk si leen ci fi nga xam mooy diggante Tel Aviv ak yeneen dëkk yi waaye daal jàpp leen daal Kiryat Shmona nekkatul place boo xam ne yahud mënati na fa nekk di am jàmm ndax nag Hassan Nasrallah ak nga xam ne mooy ay taalibam ërtal nañ leen fëgg leen ay missile ak ay obi mayu ñu leen jàmm benn yoon di ko jóor seen kaw ba fi mu toll ñoom ñoo mujj gàddaay génn foofu ci nga xam ne mooy Kiryat Shmona ngeen xool ko ci vidéo bi ni ñuy dawee di dem rek fi mu toll ni musiba dal la kon nekk ne yow Israël mu nga xam moo fa tegoon ndawal di def lu ne di mi ci suufu Palestine bi mu nangu woon foofee ci diggante frontière Palestine ak Liban ndax man du ma wax mukk diggante Israël ndax man pour man Israël amul fi am mooy arlu Palestine kon nag diggante Palestine ak Liban foofu nga xam ne Israël tegoon na fa loxo mu nekk ay dëkk yu am am doole muy Kiryat Shmona gënoon faa siw nekk dëkk yu neex a neex dëkk yoo xam ne daanaka seen yu a doo leen fi yàkkee seen nàkk ku fi toog dinañ ko faagaagal ci jamono bi may waxi nag ñu ngi naan ña dem administration bi rek moo fa des ak militaires yi ak ñi nga xam mënuñoo daw yéen na ngi doon mbokk yi di ko gis ba léegi mu nekk ay dox ñaxtu yu tara tara tar manifestation yooyu benn bi nee nañ ma nga am ca Paris waaye ñaareel bi nga xam ne moo amee mbind mu xonk bi moom ma nga amee nga xam ne na ñëpp xam nañ ne ci xeex bi ba muy tàmbali dafa daal di ànd ak ki nga xam ne moom mooy yixut yi loolu firndewu na ci taxawaay bépp buñ mas a am ci ay kaddu ak ay jëf ba jël seeni soldat tàbbal fa waaye jamono bii nga xamante ni tey jii mu ngi war a nekk réew moo xam ne tey jii dina accueillir li ñuy tuddee élection boo xam dina am ci Union européenne foofu ci boppam teewul gis nga mbooloo kon ñu xalaat sa jour élection bi activiste yi dinañ fa doole wool lool dinañ fa baree bari lool almaañ gis ngeen ko waaye ci beneen wàll ndeysaan jàmbaaru fàkk tëdd yi muy ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Saraya Quds ñoom it aussi tamit firndeel nañu ne fëgg nañu benn euh, char de combat Merkava foofee ci mbedd mi ñuy wax saaxatul xulafa ci benn mu xayam foofu ci côté Jabaliya ñoom daal nañ koy dóor li nga xam ne moom mooy ab roquette 107 kon mbokk yi jàpp na manifestation moom du masa dakk ñi nga nga xam ñoom ñooy wër di jébaale ñaaw teefu yi ñu nekk ci àdduna bi muy ñaaw teef yi nga xamante ni saa ñu dumaa rek ñu daw dem ci jigéen ñaak xale ya waaye duñu mas a jàkkaarloo góor yàlla yi nga xamante ni wallahi lazim dañoo pentir seen i kanam ci seen xol leer nañ fes ni daan foo gis seen casque gis ñu bind ci kataibul xasam mbaa ñu bind ci li nga xam ne mooy saraya quds ñooñu nga xam ne ñu benn yoon ci joxe seen bopp dee ngir borom bi subhanahu wa taala waaye fu ñu gis sab yahud moom dóor nañu bal boole ko léppam lakk tabbal safara boppam nag tey jii ñoom la ñuy daw di dem ci jigéen ñaa xale ne dañuy fayu kon nag mu ngi noonu si ngeen ko eh, manifestation yi bëri nañ ci àdduna bi waaye tamit ña nekk ci xeex ba moom ña ngay xeex saa su nekk di jàmmallu ak yahud yi ak puissance bi nga xamante ni moom moo topp ci seen ginnaaw muy Amérique Angleterre Allemagne ak réew yu baree baree bari kii yi ba léegi ngeen xool ñi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee armée syrienne bi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu lépp jëm ci seen wàllu jaww di ko aar démb ñoom rotal nañu avion boo xamante ni ma nga jóge woon Israël foofee doon jéem a naaw ci asamaanu Hims foofu lañ ko daal di wàccee avion boobu nag ab dorin la maanaam ab drone la maanaam ab avion la boo xam ne dafay jël lépp lu jëm ci wàllu xibaar waaye dettal nañ ko depuis ci kaw mu daal di daanu ñu seetluwaat yeneen i njaboot yoo xamante ni kat ñoom ñu nga dëkkee foofu ci Israël te ñu jàpp seen i doom foofu ci Gaza ñoom wala jàpp seen doom foofu ci Palestine ñuy jéem a tëj mbedd mu mag boobu nga xamante ni moo nekk ci Tel ngir di yëkkati seen i kaddu ne ñoom lañu gëm moom mooy Israël signewul dara lu leer ci liy tax seen i doom yi jotaat bët set hôpital bi ngay xam ne moom mooy hôpital Soroka saa yu ko waxee ne mooy hôpital yahut yi te ma nga nekk ci dëkk bi ñu xam bi Elu Sapi gis nañu démb juróomi soldat yi yahut yoo xam ne ñëw nañu fa gaañu gaañu yu metti di fa faju ginnaaw ñu leen jamee foofu ci Gaza waa Saraya Quds ci beneen wàll tëmbal li nga xam ne moom mooy ay roquettes yu diis a diis yooyu la ñuy tuddee iyaaru soixante mbooloo yahut ak seeni ngànnaay bañ doon jéem a tàbbi ci béréb bunt boobu ñuy wax Salahuddin ci ndey góor meeru dëkk bi ñuy wax Rafah ci beneen wàll ñi nga xam ne ñoom ñooy waaye Yemen di taxaw ñi xam ñooy Palestine muy xuus yu ne ñi nga xam ne ñoom saa su nekk ña nga ca wetu mujaahiduuna yi ca biir Palestine démb daanalati nañu benn avion. boo xam ne avion américain la di MQ9 maanaam mq nu ñu daaneel mu daal rot àgg ci suuf foofee ci seen i jaww yi nga xam ne moo ti maara ba kon donc jàpp leen ne ñi nga xam ne mooy waa Yemen na ñu benn avion américain bu MQ-9 mu daal di tëmbax ci daal ci suuf. ñu jëlewaat ci bureau bi nga xam ne mooy yor lépp jëm ci wàllu yéenekaay bi ci gouvernement Gaza muy bureau d'information du gouvernement Gaza mu ne xiif gaa ngay dëkk boobu di wax ñuy wax Gaza ci càmmoñu dëkk ba mu ne lu toll ñetti semaine gis nañ ña dëkkee dëgg-dëgg ñu ngi tàmbalee di ñàkk lañu jotoon a denc ci as lekk ak naan ba jàpp nañ ne xiif gi mën leen alawtikuwaat foofee ci Gaza donte nag bi koy wax fekkul démb dëgg-dëgg ay téeméeri téeméeri camion dugg dugg nañ sànni ndimbal lu takku donte dégg ngeen waa Gaza nee nañ loolu Amérique daf koy def di sëlëm nit ñi ci kaw tey jëf ci suuf kon daal day euh, ëf ci kaw di matt ci suuf loolu nag yàgg na nag ci ab yowut ak ñiñ ko digaaleen waaye ala kulli xaal waa Hamas ñoo joxe information bi daal di nag melokaanu xiif ma ngay delluwaat ci dëkk boobu ñox gi Gaza ci càmmoñ ba loolu nag ginnaaw bi nga xam ne ñetti maanaam ñetti semaine yoo xam ne lañ amee woon ci ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan tàmbali na di daal di jeex kon taxaw leen nekk loo xam ne lu jaadu lay doon benn général israélien Ishaq Barik moom mooy wax ci télévision boobu di canal 14 bokk ci télévision israélienne yi gën a siiw mu ne kat man ak Netanyahu mi nga xam ne mooy juriñ bu njëkk bi ci yahuut yi def naa ak moom daje juróom benn yoon laataa muy tab bi ci xeex bi nga xam daf ko jaare ci suuf jëm Gaza mu watandikoloo ko li nga xam ne moo ko ci mën a fekk ci ay musiba bamba kumba yu méttee métti mu ne ñu ngi nii tey neexul ba neex waaye nag dañoo ñàkk xeex bi foofu ci Gaza ndax li nga xam ne moo may dikkal ci ay xibaar wane na ma nag tar na lool ci yi nga xam ne ñoom ñoo jiite kuréel yay xeex foofu ndax lu tax mooy daje ba ñuy dajeeg doomi palestin yi bu duggee Gaza dëgg dëgg xam ne suñu armée bi des nañ leen tàggat niñ leen waroon a tàggatee ba tax na nag dafa nekk loo xamante ni daal euh, man sax dem naa ba doyal ci rapport yi may yónnee naa ma suñu armée bi tàggatuñ leen ndax fi mu toll ni bés bu nekk liñ ciy perte dafa bari des na sax nag ndax jàpp nañ ne ñoom seen i ngànnaay ak seeni mën-mën moo leen doon xeex te xamuñ ne xeex dëgg-dëgg fit la boo xamante ni yàlla moo ko teel boppam te fi mu toll nii nag ruux ba boobu mu sànni muy fettéeral ak tiit ak gi nekk ci seen xol ak seen fekk bu ñu jàmmalloog ñi nga xam mooy julli ñi loolu la ñuy yëg moo tax doo gis kenn ku jàkkaarloog julli ñi la def daal mooy dem mabbu fa jigéen ña dëkk surtout ay refusé yu daw làqu loolu nag nekk lu ñaaw a ñaaw waaye dara gën te ñaaw li muy ñaaw ñaaw yëpp pattaaral beeg miit gi nga xam ne kenn mënu ko comprendre ba mel ne sa dafa nekk lu jaar yoon moo am ci réewu jullit ñi loolu nag nekk loo xamante ni dëgg dëgg dëgg dëgg nag day na nag dëgg dëgg gémmi ndax pattaaral gi pattaaral gi moo yëm ñëpp ñëpp ñëpp Israël li muy def li muy ñaaw ñaaw ñaaw réew yi li ñu ne patt moo ko gën a ñaaw li réewu arab yi réewu jullit ñi ko wër li ne patt wallahi moo gën a ñaaw li Israël di def ndax nag bu fekk ñoom ñi ngi wax ak jëf sax mbir mi mën a woyof waaye beddeeku ñi nga xam ne mooy doomi palestinien yi bàyyi nag Israël muy jëf ci ñoom ñaawteef bu doon Israël dafa wàcc ci terrain bi jàmmalo góori Hamas jàmmalo góori Saraya Quds kon ku mu neex na nga noppi bul ci wax te xam ne vingt quatre heures lañ leen may ñu naani ji ataay bi Tel Aviv ndax amuñu fit wi amuñu ti malgré nag ñu ngi ngannaay yi gën a sophistiqué ci àdduna bi waaye ci jamono bi wax nag dañ daal di seetaan ñi nga xam ne mooy palestiniens yi surtout jigéen ñi xale yi te kenn seetaan leen ku lu réew jullit ñi defuñu benn effort lu dul di wër ci salon d'honneur yi di wëndeeloo ko di dajale ay xaalis di noos di def ay déclaration yoo xam ne lépp dafa nekk ci faveur ak compte israel waaye nag yàlla na moo amee mbiram te dana leen taxaw ni mu waree kon mbokk yi ñu jeexalee xibaar yi lii ñuy waaj andi muy xibaaru bi topp ci mbirum Iran ci ginnaaw bi yàlla dogale avion bi daan woon xam woon ngeen ko maanaam hélicoptère bi daan woon muy Ibrahima Raisi Arrahil Achahid te loolu amoon ci bu yàggut daanaka enquête yu mujj fa la ñuy tëjee xibaar yi. kon mu ngi noonu canal bii di Al Mayadeen ma ngay yëgle ni chef d'état-major bu armée iranienne tasaare na benn bataaxal boo xam ne mooy bu ñaareel bi ginnaaw bi mu tasaaree ci bu njëkk ba lii nag dafa aju ci lépp loo xam ne ab l'enquête la bu ñu doxalee ci diggante bi hélicoptère bi nga xam ne moom la président Chahid Ibrahim Raisi yéegoon ba mu daal di xaweeku mu ne nag waa Iran ci seen chef d'état-major ba ma ngay wax ne amul benn jëfi ak saboté goo xam ne war naa mën a màbbal li nga xam ne moom mooy hélicoptère ba niki noonu tamit seetluwuñu lenn nekkoon na ci biir mën koo yëngal ba daal di koy toj mu daal di tasaaroo ci jaww ji ba léegi chef d'état-major bu iranien ñoom ñooy wax ci ñaareel bataaxal bi ne amul lenn loo xam ne ak yàqu-yàqu la wala lu ñàkk war a jaar yoon la ci diggante bi ñuy jokkoo ñi nekk ci suuf ak ñi nekk ci kaw muy maanaam wàllu communication bi gisuñu tamit benn dett detteel boo xamante ni hélicoptère ba def na ko di déngi déngi ci jamono ya muy naaw ba léegi chef d'état-major lenn tamit luy wane ne am na njeexital rafetlu xeex buñ ko xeex jaare ko ci wàllu xarala yu bees yi ba léegi chef d'état major iranien ñooy wax ne tamit lim ba yéegoon ci hélicoptère bi nekk na lim bu dal bu tegu ci yoon boo xam ne dëppoo naag la hélicoptère bi mënoo yàpp ba léegi chef d'état major iranien ñooy wax ne topp nañ mbir mi gëstu ko ci wàll wu nekk daal ba fa ñu mujj daal xam nañ ne daal faatu bu jaar yoon la lu suñu borom dogal la mbokk yeeg xarit yi ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu yërëm Ibrahima Raïsi ak ministre des affaires étrangères boobu ak mboolem ñi ci toppoon ak mboolem kuy jullit yal na yàlla dooleel Palestine yal na yàlla dooleel mujaahiduun yal na yàlla mabbu yahut yi mabbu képp ku leen di jàppale ñu teg foofu suñu kàddu di nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di jéggalu borom bi subhaanahu wa taala di leen koy jéggalu wa axiru daan alhamdulillahi rabbil asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu